Qui boko ko tànnee du këlee mooy liggéey Qui mooy liggéey ki ngay tan est-ce que am compétence bi. est-ce que préparé wu sax. ki ngay tan est-ce que préparé wu na ki ngay tan est-ce que euh, il était dans les dispositions sax pour nek candidat ki ngay tan fiñu tollu ci Sénégal moy ki nga xamné ni, buñ ko né rew maa ngi nii suba mu commencé liguey mais pas ko xamné ni, buñ ko né rew maa ngi mu nan gaay président naka lay comporté woo président naka euh, euh, naka lay def di jàng soxlawuñu kuy jàng ku xam ku mën ku tari ba pare la ñu soxla Ali Mamadou Dia dafa jàng dafa xam mhm. dafa tari ba pare mm. très te li mu tari ñeneen ñi ñoo ko bénéficié woo mhm. jot na Sénégal ñëw bénéficié wu ko jot na mu ñëw joyanti suñu réew